ñaan jàmm ci réew mi ak réew ko wër jaajëfal alxaaji Oustaz Alioune mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ak projet def dara ñoo ngi woon ci suratul xujuraat toll ci aaya fukk ak ñeent e, niñ koy baaxu di def mooy jàng al aaya door a ñëw ci jëm ko firi ak jëm ko tekki aoudu billahi min alsheitan qaalat al acraabu aamanna qul lam tu'minuu walakin quluu aslamnaa walammaa yadxuli al-iimaanu fii quluubikum wa in tutiicuu llaaha wa rasuulahu laa yalidkum min acmaalikum shay'an inna llaaha gafuurun rahiim إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min ash-shaahidin allahumma ij'al al-qur'ana lana fi dunya qarina wa fi al-qabri mu'nisa wa fi al-qiyamati shafi'a wa ala sirati nuura wa ila al-jannati rafiqa wa baynana wa bayna naari sitran wa hijaaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wujudika wa karamika yaa karamal akramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot noo ngi ci suuratul xujuraat aaya fukk ak ñeent muy aaya quatorze araab yi ñëw nañ ci yonente ba ne ko gëm nañ mu ne gëmu leen loolu nag noo ngi ñaan yàlla bu mu nu dal ndax kat li des ci laay ji imaan ak islaam rekk ci la ko yàllay wax li des li des saar yu bokk imaan ak islaam rekk la ko yàllay wax ndax yàlla jàngale na fii nit mën naa am lislaam te amul imaan jàngale na ko fii nit mën naa am lislaam te amul imaan waaye it nee na léeg nit di bàkkoo ne moom jullit la sunu borom ne loolu moom bu jarumaa wax atuallimuna naasa bi diinikum waaw boo ñëwee bàkk mu ne yamunuuna aleyka an aslamu waaw kon imaan ak islaam ñaari yëf la jullit ak jullikat jullit ak mu'min wala muslim ak mu'min yàlla dàqal nañuy seen imaan seenug mu'min saxal seenug muslim yàlla bu nu dal mu tolloon ci imaan googu nag mbokk yi dafa am lu muy ëmb ci biiram imaan googu yàlla wax ne ñee gëmuñu ko li tax gëmu ko li tax mu ne leen gëmu leen mooy ñoom seen imaan dafa dafa ëmbut yu nuy wax ba ca jiitu dafa war a ëmb am gi yàlla am waaw am gi yàlla am dafa war a ëmb ci am gi yàlla am ne yàlla kenn la yàlla kenn la bu fi ñaari yàlla amoon asamaan ak suuf dana yàqu asamaan yàqu suuf yàqu waaw yàlla kenn rekk la tabarkal waaye mu ëmbaale nag ne yàlla moomu nekk kenn dafa mat dafa mat yàlla ku mat la matam googu nit ki da koy gëm waaw yàlla ko mat la moo tax ñu jàng ci alxuraan an ko doon jàng ci bind bi weesu qul illahuma malikal mulk qul neel allahumma malikal mulki malikal mulki man tasha yàlla moo moom nguur moo koy jox ku ko neex waaye moo moom nguur moo koy foqar ci ci ku ko neex professeur yàlla fii wane na ni nit bëgge nguur ni nit moo tax yàlla du wax maa koy jël ci ku ma neex daf ne maa koy foqar ci wa tanziu moom moom nguur mooy teral ku ko neex mooy toroxal ku ko neex ndax yooyu yépp ci loxoom la nekk waaw nga ne ko nag innaka ala kulli shay'in qadir lu ne nga man foofu lañ taxawoon ci sunu bind bi weesu te mooy bindub démb bi ci muxtawayaatul imaani wala muxtawal imaan gi nga xam ne moom la yàlla bëgg te ba ko ko wax ne ko aman naa du la wax xullam tu'minu yàlla nañ ko bokk yàlla kàttanam googu matam googu moo tax tëliwul dara tëliwul dara waaw su nit nekkee ci njàqare ne ko kaay mu ñëw bu nit nekkee ci lal feebar ne ko kaay mu ñëw bu ëllëgee yax yu funux yi ne ci biir suuf yépp mu yëlëb leen ñu jóg waaw mu ngoog mooy delluwaat mbindeef yi nam leen tàmbale woon awwala mara wa huwa ahwanu alayhi loolu lu ko yomb la waaw xam naa ñiy ji gerte xam nañ ci dara ñiy ji ñiy ji mango xam nañ ci dara képp koy bay ni nga yore jiw yi mu dee waaw koŋ nga def ci suuf mu tooy xepp génnaat nekk lam nekk ko niruwaat ko loolu ku mu ku mu fa ku mu jàngalul dee ak dekki xamuloo li xew waaye nelaw mi rek nelaw mi rek waaw moo tax mu ne ci alquran ba tey auzu billahi min alshaytani arrajim tabaraka alladi biyadihi almulku wa huwa ala kulli sheyin qadir waaw waaw tabaraka alladi biyadihi almulku laa maa ki nga xam ne ci loxoom la nguur nekk wiiw yàlla mi nga xam ne ci loxoom la nguur nekk wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne tëliwul dara lépp la man yim jomb moo fi am waaye yum tëli amu fi waaw yàlla yum jomb la am waaye yum tëli amu fi lépp la man moo tax mooy alxakimu lazi laa laa yaxluqu shay'an abatha mooy ki xereñ ki nga xam ne bindul dara sànni ko rek comme comme hasard mu dem waaye bàyyiwul dara it sudan waaw du def jenn jëf lu dul jëf joojee am na lum ca jublu waaw moom sunu borom loolu mu tëral nag ki ko xam-xam ko ki ko réere réere ko bu ko yàlla baaxiwut réere gi mu koy réere du gind ki mukk ma tax ci penc mi bi yàlla nekkee alxakim la waxoon ne la malaaka ya waxoon mën naa am ci pénc ndax malaaka ya bi leen yàlla ni indi jaa'il fil ardi xalifa dañoo def ñoom itam benn campagne pour yàlla indi leen ndax xilaafa gi bëggoon nañ ko xemem nañ ko bu yàlla ne inni jaailun fi ardi xalifa ñu ne ko kon xam naa noonu lay doon waaye xam naa noonu lay doon ca ba ñu yëgee ne bachar lay indi muy mbindeef doomu aadama lom ca lañu ñu tàmbali na ko yàlla ndax da ngay yóbbu ca suuf koo xam ne dafay yàq di fa tuur deret nun de boon yóbboo duñ yàq duñ tur de rek te ni sàbbaal ba nga doyal loolu lañ ko wax yàlla ne dina fi indi nit daal di fi indi nit nag nit toll jamono joj loola malaaka yi waxoon ca lañ nekk di tuur deret di tuur deret loola malaaka yi waxoon nit ñi ne ci di fetal ay nit ñuy faatu ñuy dóoru jaas yi nit muy faatu waaw ñu koy poisonné muy faatu léegi ñu àgg ci rendi ko ak ray ak siif penc mi nit ñool ñool ne kur doomu aadama dellu ca loola malaaka yi joxoñoon ne ko loolu la ñuy bañ ci nit sunu borom danaan xam naa lu ngeen xamut danaa wut ay loi yóbbu ak téere jox leen ko waaw ndeysaan loolu la ko wax fa imma yatiyannakum minni huda fa man tabi hudaaya fala yadillu wala yashqa njub googu mu ñu indil nag mooy alquranul karim ci biir alquran bi yàlla bëggee tuuru deret yu bari yi jóg fi ak rey jógi fi yàlla bëgg na lool daal di yebal njool makk ne ko yëtal ma leen yëtal ma leen projet de société bii lu jëm ci àtte mu ne ah, mu ne danaa ci àddu àddu ci lépp loo xam ne da caa sévère rek mu ngi ci biir alxuraan waaye fi ne nun doomu aadama noo yàlla gëm nañ la gëm nañ si yonent bii du Muhammad li lay wane ne gëm nañ la mooy ñu ñoo ngi woor loolu dañ wax yàlla li lay wane ne gëm nañ la nag mooy noo ngi woor waaye kutiba aleykumul xisaasu ñu ne ko ah, boobu nag moom sunu borom mënuñu ko ndax dañ koo weesu bul nu fi indil ay acte yu yu tardé bul nu ko fi indil yow suñu borom loolu loolu daal mënuñu ko mu ne kutiba aleykum in taraka xay ahadukum in taraka xaynil wasiya ñu ne ko loolu tam mënuñu ko ñun daal liñ man mooy woor mën noo julli li ëpp ci ñu julli ñu jullee suñuy kër nag wax dëgg yàlla am <laughs> te te te ko wax mu teg loo xam ci dënd ba mbokk yi lii xew ci pénc mi bërki démb bi yàllay wax ak malaaka ya la malaaka ya ne ko woon boo leen fa yóbboo dañuy tur deret yàlla ne xam naa lu ngeen xamul bu ma fa yóbbooy luwaa buñ ko jëlee dara duutu turu waaye noonu nag luwaa yooyu lañ na yàlla duñ ko def te jàmm dana am loolu lañ ko wax suñu borom du def yi ngay santaane te jàmm dana am boo nee leen ñu naa ah, sharia sharia mbir mi mbir mi démb bi fi loi yi nekk fayul kuñ tooñ wala peine de mort bi mu fiy nekk réew mi teewutoon réew mu layig la mu jóge fi ñol ñol ji am ñu xalaat lu ko fiy jëlee waaw ñu ñuy xalaat lu ko fiy jëlee ci lañ toll léeg-léeg doomu aadama boo waxee mu ne charia mu sharia moom lu tax ñu ragal ko sharia lu tax ñu ragal ko kere ba mu waxtaan ak aada day aada dafa mu jàgg na ko yow mi yaay sharia mu ne ko mu ne ko lu tax kon ñu ragal la mu ne ko waaw kay sama wujju moom mooma mooma sëlëm waaw sama wujju mooma sëlëm kuy sa wujju mu ko wenn wujju képp laa am mooy laïcité la laïcité moom dong la am ci wujju ma weneen moom moo wax nit ñi ne leen man maa mel nii damay dagg ay loxo damay rey ay nit du rek laa fi nekk nu ko man de li nga man tey bu wute naag lee ñoom ñaar seen waxtaan wa amoon na solo defoon naa ko fa waxtaanu fajar ndeysaan mbokk yi peine de mort mooy lan walakum fil walakum fil qisaas xayaatun peine de mort mooy lan yaa li si naa mën a kutiba alaykum al qisaas luy qisaas xisaas docteur Ablaye Lam ñoom ñiy jàngale usul xam nañ ne tekkiwul dara dul ku tooñ fayul leen ko fayul leen ki tooñ wala boog ku ñu tooñ fayul leen ko loolu rek lay tekki nag ku ñu tooñ fayul leen ko waaw fekkub jànq ca këram nga ñëw ne ko fokk ñu ànd maag yow siif wala bëgg koo siif mu bañ nga rey ko ñëw toog tegale say sées di ko ay njaal waaw tabarkal seet loolu day mi ngi fi de li ko fi mën a jëlee nag yàlla moom waxoon na ko waaye noonu mi ngi noonu rek droit de nag nee na bu ñu reyee waruñu ko faye ak rey droit de l'homme nee na dellu ci ci acte yii ak tardé la droit de l'homme nee na avancé nañu waaw kon baax na bu fekkee avancé gi mooy bët bu set ñu rendi kenn ku ci sa wàll jot rek ñu rendi la ku ci sa wàll jaboor jot ñu rendi ko baax na baax na de macha allah droit de l'homme loolu baax na droit de l'homme nee na ko sàcc kenn du ko kenn dagg loxoom droit de l'homme nee na ku ku jël yëfi jaamur sax bu buñ ko génn ca télé ba kenn warut a génn xar kanamam du de l'homme nee na bu kenn ma kenn kuy def crime baax na de ala kulli xaal suñu borom moom mu ngi toog di xaar rek am na nag lum dig koo xam ne kii da ngaa rey ku gëm loolu moom ma ngi koy mu ngi xaar képp ko rey ku gëm loolu ma ngi koy xaar waaye ci àdduna si nag li tax mu dox ba ak rey jóg loolu moom proposé nañu ko waaw ala kulli xaal yàlla daal dafa mat sëkk laa yafalu filan aw yashrau sharan illa li xukmi nee na malaaka ya ba mu leen waxee ne leen euh, xamal leen ma tur yi qaalu subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana moo tax ku yàlla xamal nga xam kum xamalut doo xam innaka anta alimul hakim qaalu subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta la alimul hakim ca baqara aya 32 waaw waaw ah anbiyaa u yeeg awliyaa ñoo ko seedeel loolu anbiyaa yi seedeel nañ ko seedeel nañ yàlla matam gi awliyaa yi seedeel ko matam gi ulul albaab yi ko matam gi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ndeysaan ndeysaan rabbana maa xalaqta hada batila yàlla nee na ca awliyaa u yëg anbiyaa u yëg ulul albaab yi ñoom ñoo ñi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla ci bu ñu taxawee di ko fàttaliku ci bu ñu toogee di ko fàttaliku ci bu ñu tëddee tey xalaat ci ni mu bindee asamaan ak ni bindee suuf ba noppi di ko bàkk nag rabbana maa xalaqta haza batila dafa dara ci neen baa ngay fo ne ko subhanak gàcc nga laa ma yow mbokk yi maa ngi suuratul xujuraat aya quatorze qaalatil arabu lam tuminu yàlla huwa rahimu ni mu nekkee rahman noonu la nekkee rahim rahim nga xam ne yërmandeem moo jiitu meram nee na yërmandeem ji ñëpp ci xaj xam-xamam bi fépp la daj alxuraan nettali nañu ko ca waxi malaaka ya kera ba ñu ñaan ba malaaka yi di ñaanal doomu aadama ci kaw suuf ndax ñoom mujj nañu reconnaître na ah kon kat yàlla li wax noonu la waaw nangu nañu victoire bi nga xam ne moom la doomu aadama am ci ñoom nangu nañ seen défaite waaw parce keroog ndaje ma ba ñu ba yàlla yi tëral examen ba pour xam kan mooy ñëw ci suuf malaaka yi la wala nit ñi la nit ñi ñoo gañe waaw doomu aadama moo gañe waaye ñoom malaaka yi di nangu nag seen défaite nangu victoire am daal di koy ndokkeel rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma rabbana wa ilma mu ngoog ko ndeysaan ñu ne keroog ba ñuy ñaanal doomu aadama lañ ko waxu na yàlla si yërmande àgg na fépp sa xam-xam àgg na fépp waaw ñoo ngi lay ñaan nga yërëmal ñu euh, sa jaam yi di doomu aadama waaw sunu borom tontu adaabi usibu bihi man ashaau wa rahmati wasiat kulla shay ndeysaan sunu mu ne sumay may duma damay tànn su may yërëme damay maasale allahu akbar yàlla nee na sumay may duma mu ne amu ne damay tànn adaabi usibu bihi man ashaa sumay may duma damay tànn ñu ne ko waaw mu ne wa rahmati wasi'at kulla shay su ma yërëm damay maasale allahu akbar waaw ndeysaan loolu la jàng ci alquran bu ñuy tàmbali kaamil bi ca kaw te mooy bismillahi arrahmani irrahim bismillahi allah nga ne ko luy kuy allah mu ne arrahman kuy arrahman arrahim waaw ngir yërmandeem googu mu teg ci kaw matam gi ndax matadee ngi yem ci mel ni mel ni euh, jiit bari bari wax bari tooñ foofu la matadi yem sunu borom yërmandeem googu yaatu ba tax mu ne qul yaa cibaadiya allaziina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu laa taqnatuu min raxmatillah inna allaha yaxfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru raxiim ndeysaan waaw mas nañ cee jaar ca ba ñuy toll ci suratu Gaafir wala zumar ngeen baal ma waaw mas nañ cee jaar mu di yàlla nee na yéen sama jaam yi nga xam ne seytaane jàpp na leen ba ngeen jàpp ne yàqu ngeen yàqu ba defe ne dutu leen jag mu ne mu ne maaman tolye yi waaw maaman tolye yi sama waa ji sama mbokk ma xaban jaw su ma masaan ne kumux ci oto mbaa ab oto ne ma kumux <laughs> ba ba ma mokkalagul yëf yi boom oto ne kumux lum nor nor nor su ma ko ñu lee xaban jaw ñoom day xëy rekk mel ni dalu ñu ko woon waaw waaw tabarkalla ñoom ñoom Mouhamadou Sarr mii ndeysaan ci faja nun la ci mel keroog ba sama sufar ba génne àdduna san lemin Diop al na ko yàlla yërëm waaw saar doxe fu ñëw rek ne ma munuma koo wuutu de ndeysaan munuma koo wuutu ndax Lamine keneen la woon waaye daal loo ko daan sant comme ko fi bu jotee sant ma ko rekk mu xam ñoom it buñ jàppee oto lum nor nor nor noddante ba nga defee ne du woon mi buñ yi rek mu mel ni lu bees loolu sax fi ne moo tax sunu kër yi ak sunu oto yi jafeñ-jafe ñi penc mi tax na kër yi léegi ni téléphone yi mel la mel habillage rek ngay def ndekke ndekete tabarkal la waaw sunu kër yi <laughs> am na ci yoo xam ne 1948 lañ ko tabaxoon wala ñun bi ñëw bi ñëw bi ñu ñëw Dakar 79 fi leen ko fekkoon ñun kër gañ dëkkoon maak Pape Dieye ak mën numbe dal na ko yàlla yërëm kër gañ dëkkoon ba fii nu toog seet ma noppi sax waaye daal noonu doomu aadama yi di mën a noddantee lu yàqu nga indi lu paan ñu defar ko sunu sunu taabal de mixage bii fi ne bu bu ma ñëwee kostu ko si mënuma ca dara bu ma wooyee Alioune Badara Socé mi ko jàngi woon ñaari minute rek mu ne ma c'est bon yàlla bind doomu aadama damaa damay dem ba mu yàgg mu paan doom damaa dama dem ba mu yàgg mu paan waaw nekk nit ku paan ne ci biir nit ñi ah sunu borom ne ko mën naa réparer paan bi mu ne maa la ko wax paan yëpp laa mën a réparer allahu akbar maa man maa man tôlier yi maa man mécanicien yi ñu ne ko lu tax mu ne allah ya'lamu man xalaqa wa latiful xabir tôlier bi defarul oto bi mécanicien bi noonu boo demee ci la marché Alizé Cheikh Diom yal na ko yàlla yokku wér defarul téléphone waaye fii nag ba sa bos paane boo ko yëtee tabarka def toogal fee nga toog tuuti rek mën a am yàlla mu ne man mi nga xam ne maa defar nit kon su paanee mën naa koo defar waaw boo demee tey ci docteur yi sa tànk am jabet dañ naan tànk ba tépp teg fële bu dee loxo la léeg-léeg ñu ne loxo ba tipp teg fële man gis naa kuñ daggub loxom gis naa kuñ daggub tànk man mii gis naa ko gis naa ko kuñ xàppati ci poojam def ci benn barab waaw léegi nag ba demee ci ñoom ñoom ma yor faal yàlla na yàlla na yor bu ñuy jaay pomme de terre bu ca benn nébee dañ koy dindi bu ñuy jaay guro bu ci benn sànkare dañ koy dindi ñun nag nee nañ ñi sànkar ak ñi fuus ak yëpp ñi paan ak yépp nañ boole ma tax sunu borom gi nag moom nee na lu waay man di mel mën naa laa réparé bu leen naagu mukk ni mënuma leen réparé inna laa yaxfiru zunuba jamia waaw paan yépp paan yépp laa mën a réparé huwal xafuur moom mat ba suturaam mat sëkk kum ci yiir tabarkàlla dootoo torox arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla na nu yërëm mbokk yàlla jooju ku ko am yàlla jooju ko am lu lay jural mu meral la bu ca nekk yàlla jooju ku ko am fexeel ba la lay jubaleeg moom rekk mu nga na ca loola waaw ñu ne falaasafa yi ñoom aristoog ñi mel ni ñoom am na ñu doon wax ne laa silata lahu bi hadha al ñu ne yàlla mook àdduna séexuñ ci dara kon teg leen fële yàlla ndax nu mën a dem waaw baax na suñu cheikh nee na bi bi bi gaañu ne yàlla yàlla faatu na waaw seeni noon jàpp leen di leen duma yàlla ne waaw doo intervenir mu ne mukk comme nee nañ nekkuma fi nan laayu intervenir ñu bàyyi leen ñu duma leen ba ñu sonn waaw la première guerre mondiale ak deuxième guerre gis ngeen ñi ci xew waaw duggun ko nag leen noirs africain kon tabarkalla na gën a ci Allemagne moom moom France ma wax la ko tey waaw tabarkalla laaj ko ñoom professeur Iba Der yal na yàlla yokk ko wér waaw yàlla ku mat la waaye loolu ñu ne dafa absente ci kawnu bi ñoom ñoo koy wax grec yi ñoo koy wax waaw seeni xalaat la al yunaani yuna ñoo koy wax waaw bëgg fexe it ba ñu toxal xalaat boobu indil ko Occident su ko defee ñooñu nga xam ne ñoom la yaarifuna al islaam ñoom jeneen yàlla lañ xam bu jubokkut ak ñun ji ñu xam waaw yàlla ji ñu xam ñun te muy santaane ko digle ba digle digal nu koor gi ñu ci yàlla moomu xalaqa al arda wassamawati al ula xalaqa al arda wassamawati al ula arrahmanu yàlla moomu lahu ma fi samawati wa ma fi l ard wa ma baynahuma wa ma taxta sara yàlla moomu wa in tajhar bil qawli fa innahu yaalamu sirra wa axfa yàlla moomu laa ilaha illa hu lahu l asmaul xusna waaw tabarkàlla kooku yàlla ji nga xam ne moom la ñu xam moo bindu suuf moo bind asmaan yu kawe yi mooy arrahman moo yemoo ca aras loolu mu bind nag moo ko moom moo moom li ci asamaan moo moom li ci suuf moom li ci diggante bi moom la ca suufa suuf boo waxee ca kaw dégg na la boo waxee ca suuf dégg na la moo tax moom rekk mooy yàlla tur yu rafet nag la am waaw moom ngay jàng ci ayatul kursi matug yàlla gi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum waaw matug yàlla gi moom mooy yàlla moom dong mooy yàlla moom alxayu daf cee def nag alif ak laam moom rek kay dund dund rek moom dong alqayyuum mooy ki taxaw te taxawe yi war a taxaw yépp ba dara du ca manqué moom nag li tax mu man ko laa si na du gëmmentu walla nawm waxuma laa muy nelaw yàlla du gëmmentu waxuma laa muy nelaw matam ngee tax ndax bu gëmmentu woon dajjant bu dajjant woon àdduna tukki hmm? maa la ko wax buy dajjant rek àdduna tukki gis nga léeg-léeg nga toog ci jàkk yi gis ko yor ak kurusam bu daj bu kurus gi waddee rek xamal na dajant na <laughs> waaw ne ci jàkk yor ak kurus mu yàgg na nga dee kurus gi but luy loolu mooy kon moom dajant na waaw yàlla bu dajantoon rek adduna tukki laa taxusu sinatun wala nawm mbokk yi yàlla jooju huwa xaaliqu kulli shay lu fi nekk moo ko bind yàlla jooju raziqu kulli shay ku am wërsëg mooma yàlla jooju mu dabbiru kulli amr lu dox moo ko doxal ahaata bi kulli shay'in ilma lépp la xam yàlla jooju lépp la xam lépp la na ci kaw suuf ah euh, bind na ko recensé na ko ba xam lim ba ñaata la actuellement yàlla xam na doomu aadama ci kaw suuf ñaata lañ xam nañu ci góor ñaata lañ xam nañu ci jigéen ñaata lañ yàlla xam na ko moo tax mu mën a préparer aljanna ba ñu ba nit ñi bari bari bari bari buñ demee ko ne danga am kër incha allah ñuy dugg aljanna waaye xam na jigéen ñi ñaata lañ waaw xam xale yi ñaata lañ tabarkàlla bi mu xamee ne mën nañoo dem aljanna <laughs> jigéen ña manqué mu bind xóorul ayn bi nga xamee ne yàlla xam na ne bu ñu demee aljanna jigéen ñi fii rek ñu ànd dem mu ne ah, mu ne kon jigéen ñi manqué ndax bu fekkee ku ne war ngaa am sept cent femmes hmm? il faut mu bind moom yàlla luy motti lim bi xam na ko nag mu xam ne kon bu bu nit ñëpp faatoo yi ci war a dugg aljanna ci jigéen nii lañuy ñuy toll su ko defee urul xurul ini mottalil góor ñi nombre boobu allahu akbar ci sama borom waaw mu nga wax loolu mu ngi noonu nit ñaa ngi koy def di xalaat ñu dañoo bëgg añ si kër ga ñu ne ñaata ngeen bu dee ndaw ndaay bu ñu nee ñoom ndawku ko ndaay juróom lañu ñetti góor ak ñaari jigéen <laughs> seet ñetti góor ak ñaari jigéen ñu nekk juróom bu yóbbu nga suur juróomi kilo ceeb ndax ndaw ko daa mën a ceeb kilo koy doy waaw ci yàlla yàlla kon xam na nombre ñu ne ci kaw suuf ñi koy tooñu xam na ñaata lañ ñi ko tooñu xam na ñaata lañ waaw ñëpp la xam ñaata lañ xam-xam mu àgg fépp mu bind te yemale natt te jubal di dégg di gis waaw waaw xam secret xam déeyante xam na ko waaw maa yakunu min najwa thalathatun illa huwa raabicuhum wala xamsatun illa huwa saadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa macahum aynama kaanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyaama di san ngeen baal ma ci baat bu naqari beeg ni ci koor gi defee jeexantal waaw ndax fukki fan ak juróom benn ngi nii añu ma ndeysaan naanu ma ndoxum bëccëg yooyu mbiskit yàlla na ma yàlla yërëm waaw mu tax yàlla lu ne mu dim na ko ci koor ndax xam na ne dafa métti yàlla nee foo fekk ñett ña euh, foo fekk di déeyante mun naa ah, mu ne maay ñeenteel ba réunion bu xaw ci kaw suuf rek yàlla bokk na ca réunion boo dégg ci kaw suuf yëgal na yàlla bokk na ci ah bon maa la ko wax de maa yakunu min najwa salaasa illa huwa raabiuhum illa hu illa huwa raabiuhum réunion bu am rek yàlla bokk na moo xam bitim réew lañ koy réunion ya moo xam ONU moo woote réunion ba moo xam Amnesty International ñoo woote réunion ba moo xam droit de l'homme ñoo woote réunion ba moo xam sëriñi daara yee woote réunion ba moo xam assemblée ko woote moo xam président de la république moo ministre yi fu fu réunion amee rek yàlla bokk na ca réunion bu am rek yàlla bokk na ca waaw moo tax euh, jamono ji alternance amee alternance bu njëkk ba ministre daje di bëgg a def waxtaan ñu seen ñoom euh, ñoom euh, Moustapha Niang Moustapha Niass ñoom lu ko yàlla yokk rek honorable Moustapha Niass ñu seen leen ñu tàllal seeni loxo mu ne ah baax na ci de di ñaan ma ne baax na ci de ndax réunion boobu ngeen def noonu yàlla fekk na ko lu fa jóge ci ay xalaatit yàlla xam na maa yakunu min najwa talaata illa huwa rabiuhum fu ñett di réunion rek quatrième ba yàlla ah ko kon war na bu ñuy réunion bàyyi ko ci xel ndax ma nga fa ñu ne waaw mu ne fu ñeen fu juróom ji réunion maa leen juróom benneel fu juróom ji réunion maa leen juróom-benneel su gënee tuuti loolu du tee maa nga fa su réunion bi ëppee loolu du tee maa nga fa assemblée générale ak ñoom seen yooyu ndekete kon mbokk yi xalaat yeeg waxtaan yi ci kaw suuf yépp lépp la yàlla fekk ma nga ànd ak ñoom ay na fu ñu mën a nekk waaye bu yomal xiyaamee mu defal kon rendi ña ña wóote woon réunion ya <laughs> su may nabbi uhum bi maa amilu yomal xiyaama bu ñu réunion ba noppi déeyante yàlla nee na procès verbaux yëpp mi nga ma yor procès verbaux yi yi waaw ndeysaan yëpp mi ngi ma yor waaw waaw yëpp procès verbaux yëpp yàlla nga ko yor bu yomal xiyaamate mu ne diw ak diw mbooloo sàngam amoon ngeen réunion bés sàngam yeneen ko réunion woon place sàngam nangami nit ñoo ko fekki woon réunion ba ci nangam la jëmoon divers yi sax di wax na ca nangam ak nangam nga xam ne ñun tam bu ñu nekk ci conseil économique social et environnemental di réunion ndekete yàlla nga fa waaw ndekete yàlla nga fa cey allahu akbar lawul xalqu wal amru yàlla matam gee tax moom moom li fi nekk lépp ndax moo ko bind waaw muy dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi waaw di génne luy dund ci lu dee di génne lu dee ci luy dund di wërsëgal koo neex kon yàlla mi ngi fi de ma ne waa adduna ñoo bëgg fee jële yàlla kenn jiituwu ci grec yi waaye nee na ñoom dañoo bëgg adduna si yëpp jële fi yàlla waaw ñoom loolu lañ bëgg adduna si yëpp nañ ànd jële fi yàlla wan ko ne ko absente nga ko ci li ñuy def wan ko ne ko euh, gëm la bon enfin gëm nañu la mais nag sunu mbir yi ci penc moom bàyyi rek doxal ko suñu bopp te yow nga cëpp sa loxo suñu borom ne dox leen wa man arda an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma teg leen seen baaraam foofu mbokk yi ñaan borom subhaanahu wa taala may dund ba ëllëg te weesu ko yàlla na def jàmm ci réew mi def ko ci réew mi ko wër di jéglu soxna yi di jéglu sëriñ si masque yu damm yeeg yépp rek tubaarkàlla dañ leen a wuutu fii rek waaye yéen nu raw ki nekkoon ci wàllu xarala yu ma di seen mbokk Alassane Thioune yàlla na sàmm ko te nangu kooram nangu suñuy koor ngeen am ñu tafsir beeg seen mbokk Alioune ak i sponsor lob maam jaaraak ñu ko fekk seeg ñi bëgg